jërë ngeen jëf mbokk yi dañ leen di sant di leen gërëm ci waxtu yi nga xamante ni ñu ngi dellu ubbiwaat beneen xët boo xamante ni ci bloc info la waaye laata loolu ñu ànd ak mbégte loolu ak suñu moroomu naataango yi rawatina collègue consoeur confrère yi nga xamante ne agent yu 2S lañu ña nga foofe noonu ca Dakar Sacré-Cœur dans le cadre nag des activités yi nga xamante ni bokk na ci anniversaire bi ñu amal match de football mu doon gala boo xamante ni entre mariés yi ak ñi nga xamante ni ñoo di célibataires yi Fatima Silla ak ñeneen ñi nga xamante ni teew nañ fa ñoom ñoom jamono ji nag ñuy wax ngeen di teewlu ñi ngi nii euh, pour l'instant ah célibataires yi am nañu mm. benn Thérèse représenté leen tey fii daal di def lu bleu euh, ci bloc info bi nga xamante ni moom la ñuy fas yéene amal actualité bi moom moo ñu obligé rek ñu ànd ak yéen it gunge leen ndax tey la démarré muy baccalauréat bi mardi obligation bi ñëwit ci éducation Thérèse ma nuyu la ziar. fay naa la Moussa di nuyu suñu téléspectateurs yi également di dalal l'invité du bloc professeur Mamadou Sidibé. <laughs> professeur noonu ñu nuyu la yow it la. maa ngi leen di fay. <laughs> professeur tey moom moom mooy euh, coordinateur bi nga xamante ni mooy superviser lépp lu jëm ci bac bi ak ni muy doxee Thérèse waaw donc ni ki tey jii gis nañ ni que épreuve première tour baccalauréat général tàmbali na tey ce mhm. matin rek nekkoon nga en visite avec le ministre de l'enseignement supérieur ak kii di directeur de l'office du baccalauréat pour def benn supervision ci déroulement examen bi justement mhm. benn appréciation globale ci début mhm. d'épreuve bi waaw d'accord balaa euh, tontu ci question boobu ngeen euh, may ma ma sant yàlla d'abord. Mm-hmm. di ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla may ko gudd fan. et di remercier aussi le directeur de l'office de baccalauréat bi mm-hmm. nga xam ne tey jii moo fi waroon teew. Mm-hmm. te am émission à vingt heures aussi fële à la RTS. mu demandé ma pour ma ñëw représenter ko fii. Euh, waxtaan ak yéen ci baccalauréat bi. donc euh, di nuyu sama naataango superviseur yëpp yi nga xam ne ñu ngi nekk dans les régions di superviser le baccalauréat. Euh, wax nga dëgg tey euh, ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation bi nga xam ne mooy Abdourahmane Diouf mm-hmm. ànd na tey ak euh, directeur mm-hmm. ñu daal di visiter quelque centre pilotes dem nañu Point E dem Guédiawaye lycée Limamoulaye dem nañu aussi Kër Massar ci zone de recasement ak franco-arabe bi même au point aussi dem nañ ci école franco-arabe bi. Mm. Euh, li tax nag loolu innovation la parce que d'habitude euh, ci école Dakar yi rek lañ doon yem. mais le ministre de l'enseignement supérieur bi mu ñëwee dafa ne il faut que ñu innover tuuti nañ dem ci ñetti département yépp dem département Dakar département Guédiawaye Pikine Guédiawaye ak département Kër Massar donc euh, visite yi nag c'était d'abord xool est-ce que lépp matadi na est-ce que surveillants yi mot nañu est-ce que épreuve yi ñu ngi déroulé ci normalement est-ce que tere yi ñu doon tere candidats yi respecté nañ ko mm. et duggaale nag ci salle de classe yi tuuti motiver xale yi mm. donc euh, parents d'élèves yi apprécier nañu loolu chef de centre yu ñu fekk sur place apprécier nañ ko mm. président de jury aussi yu ñu fekk sur place apprécier nañu loolu donc on a fait euh, une visite de d'à peu près 3 heures 30 d'horloge alors su weesoo également li mu centre d'examen ak jury yi nga xam ni bëgg naa nga dellu si waat ci euh, tey yan procédure ngeen teg en place pour améliorer correction beeg surveillance bi parce que chaque année parfois daaw rek yenn <coughs> enseignant génnoon nañ di ngañ mode de mm. correction ak i surveillance bi yan yan coppite ngeen indi euh, d'abord damay commencer depuis ci sujet yi mm. xam nga bu njëkk euh, sujet yi épreuve yi ci mal yi ñu daan def yi ñu daan yi ñu nekk dañu laan dem dugal ci ay L200 di leen yóbbu dans les régions les plus éloignées du nord et du sud mm-hmm. et de l'est bu fekkee amuñu ay pick-up ñu daal di louer ay horaires dugal ci maal yi pour yóbbu leen mm-hmm. ren en conseil interministériel euh, le ministre de l'enseignement supérieur posé problème bi donc euh, ci kanamu premier ministre mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla cette année ñu jël matuwaay yépp euh, armée bi jàppale office du bac Euh, convoyer maal yëpp yóbbu leen dans les régions par voie aérienne et par routière mm-hmm. loolu mooy innovation bu njëkk bi ñaareel bi mooy xam nga ñëpp dañ doon wax ne baccalauréat surveillance bi mooy problème tout mm-hmm. euh, li ñu prévoir mooy ñetti surveillant pour salle bu nekk mm-hmm. mais innovation bi ñu indi mooy léegi salle bu nekk day am benn surveillant bi nga xam ne moom la ñuy désigner comme responsable nga xam ne ne bu ñu épreuve yi jeexee kooku moo chargé wu récupérer toutes les copies vérifier est-ce que ñëpp rendre nañu seen copie classé leen par ordre alphabétique doog ko andil président de jury bi. Mmh. maintenant surveillant yëpp aussi am nañu benn coordonateur boo xam ne moom moo leen di sur moom moo leen di coordonné nekk croix de transmission entre moom le chef de centre ak le président de jury. de telle sorte que moom mooy veiller sur le bon comportement mhm. donc euh, euh, lépp lu fay surveillant xam nga bu njëkk dañ daan jël ñetti surveillant dugal leen ci benn classe ñu yem niveau de responsabilité ku ci nekk xam ngeen sénégalais yi nu ñu mel ku ci nekk di ko jañax moroomam mhm. léegi nag loolu amatul saal boo dugg am nga kenn koo xam ne mooy responsable saal bi mhm. nga xam ne bu dara amee ci ci saal bi moom la ñuy euh, waxal directement parce que moom moom mooy le principal responsable de la salle. def nañ ko daaw daaw lañ ko expérimenté. gis nañ ne amélio amélioré wu na ren aussi ñu ne xaaral ñu defaat ko une deuxième fois. xool lan lay jur. donc loolu moom mooy li nga xam ne ne mooy matuwaay yi ñu jël pour améliorer surveillance bi. bon fi ñu dem nag aussi gis nañ ne président de jury yi ak chef de centre yi nee na ñu surveillants yi doy nañ. doy nañu te ñëw nañu à l'heure. ok waaw alors si répartition bi Thérèse mi ngi koy junj sànq plus de cent cinquante mille élèves yoo xamante ni. Mhm. ñoom ñooy concourir par rapport ak examen baccalauréat bi muy premier diplôme universitaire comme ni ñu koy waxee. Mhm. tey euh, limu ñi nga xamante ni ñooy surveillant yooyu nga tudd. ci mhm. supervision bi ngeen am bu ñu doon am. la carte cartographie nationale. en chiffre statistique lan nga ñu mën a jox. voilà comme euh, ni nga ko waxee baccalauréat bi ren ñu ngi ci. ñu koy waxatee téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom-ñeent. Mm. ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar. muy cent cinquante neuf mille quatre cent quatre vingt sept candidats. yi ñu ngi leen répartir si euh, ñu ngi leen euh, répartir ci quatre cent quatre vingt six centres c'est-à-dire ñeenti téeméeri centre ak juróom-benn ak juróom fukk ak juróom-benn. moom la am comme centre. Mm-hmm. centre yi. ay président de jury ñoo fa nekk day nekk soit day nekk jury principal wala mu nekk jury secondaire li ñu woowee jury secondaire mooy jury yi nga xam ne ne matuñu téeméeru nit ak téeméeru candidat ak juróom fukk dañ leen di jël collé leen ci beneen jury bu ñu tuddee jury principal. jury principal yi nekk nañu ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti téeméer ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent. Mhm. donc euh, président de jury secondaire yi nekk téeméer ak juróom-ñeenti euh, ak. Euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar muy 197 examinateurs yi mooy correcteurs yi nekk nañu 10 008 c'est-à-dire ñaari junni ak juróom-ñett. tout donc euh, yi nekk nañu 11 392 mooy ñaari junni ak euh, benn. ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar. fukki junni ak donc ah fukki junni ak benn ah. fukki ak benn. Eh. ak euh, ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar. donc doomu bambara la dégguma woon. Uh-huh. <laughs> donc muy onze mille trois cent quatre-vingt-douze ñoom ñooy surveillant yi. Mm-hmm. donc loolu mooy li nga xam ne noonu moom moo englobé. Mm. baccalauréat bi mooy acteur baccalauréat yi. Mm-hmm. am na aussi fukk ak juróom-ñett superviseur. yoo xam ne ne ñoom ñoo nekk croix de transmission. Mm-hmm. entre office du bac. ak président de jury yi. département bu nekk région bu nekk am na kenn. koo xam ne bu président de jury bi amee problème ci kooku lay ñëw kooku ñëw ci daal di euh, jël attache donc office du bac. office euh, baccalauréat bi application la. application informatique la. loolu aussi superviseur bi ñu yóbbu ci région bi walla ci département bi kooku moom mooy assister président de jury yi. ci seen euh, utilisation. application boobu bu ñu amee problème moom la woo. Mhm. mu daal ñëw. yaa ngi koy wax euh, toutes les conditions sont réunies waaye fu mel ni Ziguinchor. Mhm. on a noté aujourd'hui de fortes pluies. est-ce mhm. que vous vous êtes préparé à cette situation également. bien sûr bien sûr d'ailleurs bi ñuy déggee na foofu mi ngi taw. donc dañ leen jël en repérage. xool est-ce que amul gàllankoor boo xam ne dina tax mu am ay candidats yoo xam ne. du ñu composé. yàlla dimbale nañu donc candidats yëpp composé la pluie. donc loolu aussi ñu koy sant yàlla. Mhm. waaw bu ñu waxee bac également dafay am ay interdiction bokk na ci utilisation téléphone portable. Mhm. waaye itamit ay recommandations li ci mel ni élèves yi nañuy toog. ñu dañ mhm. leen envoyé bac bi via SMS. mais teewul. war nañoo mun a ñëw également ci centre mun nga ci delluwaat. exactement précision. d' abord damay wax d' abord ci utilisation téléphone yi. di déplorer situation bi nga xam ne tey jii. yéen ñëpp liin ngeen ko ci Seneweb. muy wax dëgg yàlla bac bi avant muy commencer. Mm. wax nañ lu bëree bari bari bari ci utilisation téléphone. Mm-hmm. candidats yi seen convocation recto verso pour bañ sax euh, ñu ne gisuma woon verso bi walla gisuma woon recto bi recto verso. Mm-hmm. def nañ ci ne ku ci utiliser téléphone ci biir sax ku yore waxuma la utiliser. Mm-hmm. mais ku yor téléphone am rek yor ko. ñu xam ne ne yow yoroon nga téléphone ci biir sant bi. yaa ma dégg règlement bi nee nañ la dàq. te loolu moo am Kaolack parce que président de jury bi bi mu laajee candidat yi kan moo am portable candidat yi génnee seen portable yëpp da leen dàq. Mhm. donc lépp li ci tegu nag ñu ngi koy déplorer mais ñu ngi soutenir président de jury bi xamal ko ne liggéeyam la def. Mhm. parce que ay instructions la jot yoo xam ne ne ci directeur office du BAC la la jóge te directeur office du aussi instruction yooyu ci ministre de tutelle am muy Abdourahmane Diouf la jógee. Mhm. def na déclaration plusieurs fois génne nañ ay spot yu bari ci télé bi xamal parents yi. que ne seen doom bu ñëwee di def bac nañu contrôler est-ce que saagam am na. donc mhm. parents yooyu ñëwoon foofu di contester ñoom ñoo nekk les premiers responsables. Mhm. parce que sa doom buy ñëw di def si bac. ñu ne warul yore portable ci biir école bi balaa muy génn kër gi vérifiel saagam vérifier poche am xool est-ce que. mu ngi yóbbu portable wàll yóbbu. léegi une précision de taille foofu dàq bi pour journée tey bi la. wala ah définitive dàq nañ ko. donc bac moom du ko def ren te dañ ko yóbbu conseil de discipline mm-hmm. conseil de discipline ko fa yóbboo bu conseil bi waxee ne dañ koy aj déwén nit dañ koy aj mm-hmm. parce que li mu def dañ ko considérer comme faute d'accord voilà mm-hmm. alors tey lan mooy sooru ñi nga xamante ni jàng nañu année bi ba noppi tey euh, jour examen bi ñëw ñu feebar wala ñu am maanaam absence yi nga xamante ni constaté nañ ko ci yenn centres yi ñooñu tey lan mooy seen soor waaw ñooñu dafa am lu règlement bi wax règlement bi dafa ne képp koo xam ne ne dafa inscrire régulièrement baccalauréat ba war a ñëw def baccalauréat yàlla def mu feebar wala yàlla def waajuram bu ko jege rëkk muy li ñu woowee waajur de premier degré mhm. feebar feebar boo xam ne ne moom moo koy entretenir mënul def bac mhm. wala nga nekk un international ñu sélectionné équipe nationale nga war dem compétir période bi nga xam ne ci lañu ñu def bac bi mhm. règlement bi dafa ne ñooñu nañu déposer ay preuves bu dee côté santé la nañ déposé certificat médical contre signé par le médecin des écoles. déposé ko ci président de jury bi président de jury bi aussi amul droit dige ne moom xale boobu dina def session de remplacement. moom day ramasser papier yi bu ko ramasser am na benn commission boo xam ne. am na office du bac commission boobu moo koy càmbar daal di nit ñii ñoo war def session de remplacement. mais ren dafa am lu ci yokk parce que bi ñuy déposer baccalauréat bi. daf ci amoon ay xale yoo xam ne dañoo forclos. Mhm. li ñu woyee forclos. Mhm. am ci ñoo xam ne ne seen papier yi baaxul woon mais bañ demee di ko defar ci diggante bi ñu daal di tëj inscription yi. parce que coow loolu juddoon na. waaw euh, euh, Diourbel. Mhm. benn école boo xamante ni élèves yu bari. exactement bëggoon nañu déposer. léegi nag autorités yi ci seen yërmande. waaw dañoo décider waxtaan ak waa office du baccalauréat pour que ñu ubbiwaat liste yi. ñooñu mën a dugal seen këyit. ñu mën leen boole ci session de remplacement bi. au mois d' octobre. ñu mm-hmm. ci nag euh, sant di ci gërëm bu baax les autorités ci aspect social boobu ñu def. Mm-hmm. mais aussi di xamal candidat yi ne loolu nekkul at bu jot autorités yi dinañ ko def. Mm-hmm. parce que autorités yi dañoo jël le train en marche. donc moo tax ñu def lu mel noonu mais déwén. ñoom autorités yi ak office du BAC ñooy bokkandoo organiser BAC 2025 toutes les conditions yi nga xam ne dañuy jël dañ koy jëlandoo ba nga xam ne ne de telles choses du mën a amaat beneen aussi bu ñu nemee ko ci organisation BAC bi gis nañ nañ chaque année ay candidats yu ñuy woowee bébé du BAC si je peux le dire ainsi dañ leen laisser en rade parce que seen âge motagul pendant ce temps boo jëlee par exemple France da ngay gis ku am même âge boobu nekk master mu mel ni kon da ngeen di sanctionné hmm. euh, lii di génie wala précocité Mhm. chaque année day indi coowal également. non il faut que foofu ñu andi fa ay précisions euh, kenn waxul ne bébé bac du def examen. Mm. waaye xam nga tey jii nit buy ñëwee di déposé dossier am mm. ne 16 ans la am ba pare mu nekk jugement boo xam ne ah amul dara luy prouver que ne moom ba muy am fa même extrait de naissance bi la déposé. wala ba muy am BFM même extrait de naissance bi la déposé loolu ça pose problème munoo am 16 ans avec un jugement boo xam ne donc ça ça date de 3 ans ou 4 ans ou bien ça date de 7 ans ou 8 ans donc dañu ne kiy déposé à 16 ans. wala à quinze ans. wala à 14 ans na prouver que ne effectivement il a 14 ans révolu 15 ans révolu 16 ans bi muy def baccalauréat mhm. mooy. na andi extrait de naissance buy wane ne bii la inscrire woon bii la inscrire woon CM2 te même extrait de naissance boobu la inscrire BFM même extrait de naissance boobu la inscrire donc pour baccalauréat kooku même bu amee 16 ans waaw même même bu amee 16 ans mhm. yaa may dégg te mu prouver que ne bi mu amee comment dirais-je bi muy def euh, CFE. Mhm. extrait de naissance bi mu utiliser avec numéro extrait ba mu utiliser. numéro boobu la utiliser ak extrait boobu la utiliser bi muy def BFM. Mhm. numéro boobu la utiliser ak extrait boobu la utiliser bi muy def baccalauréat même bu amee 16 ans donc officier baccalauréat la ko. defloo baccalauréat hmm. parce que kooku il est dans ses mais nga ñëw ne 16 ans nga am avec un jugement loolu office du bac da koy rejeté c'est pas évident gis nañu également récemment ci bac technique bi candidat yi jàllu second tour dañoo jàll rek hmm. ñu lancé leen pour ñu def épreuve deuxième tour bi amuñu temps hmm. bu wax comme chaque année ñu koy defee réviser est-ce que li ni mel également mën na unité tàngee ci candidat bac général yi est-ce que tamit préparation oh, waa loolu encadré nañ ko benn jury rek la am ci loolu benn jury rek la am mooy jury wu Kaolack mais sinon yeneen jury yëpp délibéré parce que li ne dañ ne li li texte yi wax dafa ne candidat bi demi journée la am mm. pour préparer deuxième tour demi journée demi la am ah, pour préparer deuxième tour ça veut dire que président de jury bii mujjee délibéré bu délibéré à midi le bac le second tour peut se faire le lendemain donc bac technique bii nag bi mu nekk. ci centre bi mu nekk c'est-à-dire a un ça c'est-à-dire que le dernier président du jury. qui oui. va qui qui qui va mhm. proclamer. Mhm. su proclamer à midi tey. Mhm. donc suba deuxième tour mën na commencer. ok alors bac technique bi c'est comme ça que ça s'est passé c'est-à-dire que ñëpp délibéré woon nañu le jeudi. à midi. benn jury rek moo délibéré wuloon jeudi à midi moom mooy jury Kaolack bi. loolu bi mu amee dañoo jël suñuy disposition parce que dafa amoon ñu nekkoon ci jury secondaire bi. ñu contacter leen contacter le chef président de jury secondaire contacter le chef de ñu jël toutes les dispositions. Mm-hmm. donc bi nga xamee ne président de jury bi mu ngi waaj a euh, proclamer aussi il a donné l'information en demandant kii ñi nga xam ne ne ñoom ñooy candidats yi nar a jàll deuxième tour. Mm-hmm. nañu toog xaar parce que li tax loolu mooy ren bac bi dafa am benn particularité. c'est quoi ren bac bac technique bi. Mm-hmm. bu jeexul woon lundi dafa naroon chevauché ak bac général te bac général bi euh, ak bac technique bi des fois dañu bokk même centre mm-hmm. Mm-hmm. pour éviter loolu il fallait que tous les résultats du second tour génn lundi ba nga xam ne ne mardi maintenant buy bac général bi di commencer mm-hmm. donc problème du am et la vraiment ma ciy profiter di sant di gërëm tous les présidents de jury yi nga xam ne ne ñoo nekkoon ci bac technique bi. Mm-hmm. parce que bañ leen présenter problème bi vraiment def nañ bouchée double. Mm-hmm. te ku xool résultat bac technique yi presque quatre vingt cinq ou quatre vingt sept pour cent. on n'a mm-hmm. pas encore fait les calculs. kon loolu wane na ne président de jury yi euh, sacrifié wuñu candidats yi. ils ont géré géré nañu jury bi bu baax a baax a baax. ba résultat yi génn vraiment mu nekk ay résultats yu mujj ayib. nga xam ne ne presque mën naa wax ne ne euh, résultat bokk na ci résultat yi nga xam ne tey jii ñooy résultat yi gën a baax. ci histoire u baccalauréat ndax am na ci ay jury yoo xam ne am nañu 92 pour cent wala 93 pour cent. d' accord en tout cas li ñu man rek mooy ñaanal candidat yëpp. comme le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye defee tey. Mm-hmm. Euh, ci benn poste wax ni tey ñoom ñooñu ñëpp nga xamante ni ñu ngi ci jongante bi mi ngi leen di ñaanal ñu def le maximum. Mm-hmm. parce que tey bu ñuy wax suñu ëllëgu nation. dañuy compter ci xale yooyu nga xamante ni ñi ngi ñëw. Mm-hmm. bi ministre bi ñëwee aussi docteur Abdourahmane Diouf jot na def yenn ci ay jotaay ay ndaje. Hmm. ba ñu waxtaan ci ni ñoom premier diplôme universitaire bi buñ ko jotee bëgg nañu. Hmm. fii lekk deux mille vingt cinq su ma juumul wala octobre. Ah. Hmm. que ñi ñi am bac buñ leen orienté ñu mën a tàmbali seenu jàng ci lu mucc ayib. waaw yaa ngi doon wax lu jëm ci wàllu correction yi. ak wàllu orientation yi nga xam ne moom la ñuy xaar. baa jafe-jafe yooyu yëpp préparé wu ngeen ci en conséquence. lépp affaire bi travail en chaîne la. gis nga fi mu ne nii euh, bëgg nañu baccalauréat bi. lépp lépp lépp du dépasser onze jours. Mm. onze jours waaw. parce résultat yu njëkk yi. Mm-hmm. dina am yu commencé génn lundi ci ngoon. waaye li ci yi ci gën a bëri dina génn mardi. Mm-hmm. te bu génnee mardi avant midi. mën nañ sax def deuxième tour bi mercredi. Mhm. mais bu fekkee dafa dépassé midi incha allah deuxième tour bi dina commencé jeudi. te bu commencé jeudi ak vendredi. Mhm. résultat yëpp dañuy génn samedi. d'accord te bu résultat yëpp génnee samedi donc ça veut dire que donc euh, on on respecte les dix jours. donc euh, waa CNRI nga xam ne ne ñoom ñoo dépendre ci ministère de l'enseignement supérieur. Mhm. jël nañ seen matukaay yëpp pour que ren orientation yi. yëpp ñu def ko au plus tard le 19 septembre. les dernières dernières ñi nga xam ne ñooñu yu mujjee yu mujjee yu mujjee du dépasser fin septembre début octobre. Mhm. ba nga xam ne ne troisième semaine octobre boobu ministre bi bëgg. Mhm. université yi commencé. Mhm. donc ñu mën a door. xanaa rek war nañu daje ci loolu ak euh, professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. tout à fait euh, xam naa dinañu euh, may prochainement hmm. prochainement ñu mun cee waxtaanee bu résultat yi génnee ba ñu xool wàllu orientation yi ak yooyu. tout à fait professeur Sidibé ñu wax ni la première partie bi moo nekk noonu ci kanam tuuti Xarjata Ñansi ak hmm. soxna Thérèse. danañu leen daal di dalal bu ko defee ñu ñëwit ci version française bi mbokk yi bu bàkk bu jógee ñu ñëw ak ci xibaaru marax gi.